xalaas maa waaru yii kàddu ku ko dégg di nga ni xalaas jommi ngay def ndax ndaw si ci jëmmi boppam dafa nekk ak jëkkëram jëkkër ji nag am rakk boo xamante ni day tukki di dem di ñëw rakk ju jigéen lay leer rakk ju jigéen ji nag moo tas sëyu femme bi ak jëkkëram te jëkk femme bi bi nga xamante ni ci jamono ji muy génn kër gi dafa ëmb dem na ba sëy bi tas te kenn waralu ko lu dul rakkam ju jigéen ji mu nekkal ci kër gi di coow ma ne coow li li ko indeek lépp mel nettali ci gémmiñu borom la dàq ndeke waa ji dañ koo yor sax déglu leen ndaw si sama problème bi ma amuloon sama borom kër mooy que ni dama fi jugee dem sëy seen kër bi ma demee nag appartement bi nekkoon daf ma xamaloon que ni moom ak sëram ñoo bokk jël appartement di fay parce que seen kër famille bi amatul amatul espace donc dafa beru mook sëram sëram bi nga xam ne France lay sëy mais dafay faral di ñëw vacances di fi def ay 4 mois moom la bokkal jël appartement donc après bi ma demee. ñu nekk fa man moom ak sërëm bi ak benn doomam bu ndaw léegi ñu dem nag bu ma ko defee noonu un mois juste ma commencé di jotee sërëm bi mooy sama benn sœur bi ay affaire heure bii nga war a yeewoo heure bii nga war a ndékki commencé ñoo boole maag moom ak heure parce que moom ay doomam yi ñeme wuñu xiif donc affaire dem daal ba commencé ma soof ñu am ci problème bi ñu ci amee problème nag ma wax ko sama jëkkër sama jëkkër mu ne ma donc foo man ma naxante ak sœur bi parce que. kooku ay mois rek la fi def day dem dégg nga donc naa naxante ak moom noonu ñu dem ba ci biir problème bi sœur bi xamal ma que ni appartement bi moom moo koy fay moom mooy joxe dépense mooy fay courant mooy fay ndox donc ay condition mooy dox ci kër gi après nag par la suite man ci laa comprendre que kon lii moo tax mu may teg ay condition après nag ci laa waxtaanee sama jëkkër pour trouver solution nekkoon nag léegi mu jéem a xool feneen fu ma yóbbu fudul kër sœur bi comme kooku daf may won ni moom moom moo gérer lépp wa ilaa ñu xool luñ def mu na ma donc moom daal mënu ma yóbbu feneen foofu laa mën a nekk su ma bu fekkee loolu dina ma envoyé pass man ma ñibbi si samay wetu parents fii loolu daal la gis comme solution ma nekk amul problème donc le temps que man may defar samay bagage bay jot naa fa jotee ak sœur bi sax ba mu buux ma buux ma parce que comme j'étais en état bi ma bëxee daf ma fekk ma sëgg bu ma wax ma ma daanu sama kaw biir li ma daana noonu ci la ma menacé ni ma yow mérité woo sax pour jur suñu deret donc moo tax ma def la lii te bu soobee yàlla ci laa ko ne comme lii jaral la ko te dinaa la yóbbu yoon man mu profité ma dem dagg convocation après ñu dem police sax ba arrangé problème boobu mais fekk moom sama jëkkër envoyé na ma bi li muy am mi ngi toog Dakar ñëwul Mbour régler problème bi ni rien du tout léegi nag si la ma envoyé paas man ma ñibbisi li ma ñëwee bon toog toog naa quelques jours mu soog ma oo oo ma ni ma boo gisee naa ni tu es en état te dinaa toppatoo de sa grossesse ba keroog nga am doom ko toppatoo ne nag dama la ñaan ba sonn pour nga négocier sama rakk te mënoo ko ma ne kon yow confirmé nga ma confirmé moom. moo yore sa lépp moo géré sa lépp donc moo waral li te pourtant man sama jëkkër ba tey jotewuñ dara sama problème boobu ma am ak sërëm bi kese kese kese moo tax mu may ma ci baal ma demee ma ne amul na dina gérer grossesse bi amul problème mais kii su ma waree woo woo woo ba sonn chaque jour mu oo ko mu di ma dawloo ba sama nijaay mooy mujj obligé woo ko pour mu envoyé ma xaalis ma dem hôpital te envoyé boobu benn 15000 francs la ma kii di envoyé su may dem hôpital 15000 lu mën. jamono bi ñu toll nii nga nekk en dem ñu lay bindal ay tonu ordonnance 15 millions mënul dara mais moom la may envoyé chaque mois da xamul ne dama war a lekk xamul ne dama war a naan xam na man sama situation de famille xam na ni sama situation demul foofu demeewul noonu ndax instant nii sama sœur moo ma yor moo yor sama lépp gérer sama lépp donc xam na ni bu baax sama situation de fii métti na demeewul noonu parce que avant may dem Mbour def nañ fii deux mois man ak moom xam na bu baax situation bi may dund. mais géré wul affaire lekk bi géré wul affaire naan lenn la c'est que man chaque fin de mois mu ma dem hôpital dem def samay visite ñëw te même 15 millions balaa ma ko yónnee problème la foofu sama nijaay mooy mu ci woote wax. donc nag après ñu négo moom def lu nekk mais ba tey mu téye mu téye di def lu ko neex su ma bëggee ne damay dem tribunal convoqué ko ñu ne ma bul fàttali da nga ëmb doomam yooyu yëpp après day joué ci doom beeg yooyu noonu yëpp samay famille di ma calmer. may négocier mais dama dem ba xam ne li négocier bi arrangé tuma te en même temps man li may dem samay visite médicale yëpp dañ may laaj moom groupe sange moom sama jëkkër parce que comme man dama yor groupe sanguin O négatif donc dañuy soxla ba sax au bu bébé bi juddoo am na groupe sanguin bu muy am moom donc man foo ma jël benn injection boo xam ne cinquante mille lay jar te loolu chaque femme dañ la wax nga teel ko préparé comme piqûre bi dafa nga préparé ko sa accouchement loolu wax ko ko mais gis naa ni waxul lu ci jëm li jëndiw ko dégg nga donc ki nga xam ne yow am ngeen problème joxu la nga lekk joxu la nga naan chaque fin amul lu mu lay jox lu dul 15000 li may ragal mooy ñu dem ba sama accouchement jot man samay frais médicaux taxaw samay frais d'accouchement taxaw kii dootuma xamante ci lu mu nekk du ma yónnee xaalis may am gàcce hôpital di fa am problème bi rek xaalis la muy 50 mille bokkut ak yi bokkut ak frais d'accouchement yeeg yooyu yëpp ma xam ne lii problème la nar a te instant yi man presque jege naa sama terme moo tax ma ne naa ñëw xalaas exposé sama problème. waaw man li may wax mooy ndaw si ndaw si na góor góorgóorlu te muñ te des fois tamit yéen jigéen ñi tamit nag des fois tamit nag man ñoom ñaar ñëpp laay blâmer ñaari jigéen ñépp jëkkër ji dinaa ko blâmer mais ca kanam la yow kii sa rakku jëkkër la peut-être am na ay nu mu mel. bëgg na ngay teel a taal añ bëgg na ngay def lii bëgg na ngay def laa sa rakku jëkkër la moo am droit conditionné la muñal xanaa xamoon mag ñu njëkk ña nan daan séye mag ñu njëkk ña da nga seen rakki jëkkër wala seen magi jëkkër da leen daan fekk fu nu nekk ngàdd leen mbaa nu dóor leenu daal ni la defal nangam ñu jóg waaxar waaxari dem def ko mag ñu njëkk ña yow ngàddul la dóor la ay wax dong la lay toppee del teel a yeewu del teel def nii sama doom yi lii sama doom yi laa yee ngaa ngaa nga ni waaw ni pat def li ngay def sa jëkkër ñëw na def nga li la war parce que tamit boo amee problème ci néegu sa néegu sëy amoo droit étalel ko wala nga kay waxtaane ak kenn ku sa borom kër foofu moom d'accord naa ci ak yow sa jëkkër nga ko war a waxtaanal waroo cee waxtaan ak kenn ku sa jëkkër wax dëgg chapeau foofu moom kontaan naa ci yow sa jëkkër ñëw na étaleel nga ko problème bi wax nga ko la sa problème majeur ne nga ko carrément sa sa rakk sàngam nangam ak sàngam lay dund ak man ci kër gi neexuma sa jëkkër ni la na na nga ko jéem a muñ jéem ko maîtriser jéem ko muñ jéem ko maîtriser te xam ni sama rakk la te du fi yàgg yaa xayti mun naa nga jéem a muñ jéem a maîtriser waaye tamit li may wax jëkkër ji sa rakk yor la yor sa jabar est-ce que war naa tax muy dox sa kaw jabar di ko wax lu ko neex ak di ko def lu ko neex di def ay violage verbale maanaam di yëkkati yenn kàddu yu tegg di ko teg ci daram est-ce que loolu yoon la moi je ànduma ci loolu ah non non non du yoon amul droit di yëkkati yenn kàddu yi di ko teg sa kaw deru jabar parce que moo la yor rek non non loolu moom d'accorduma ci normalement sagam 4 mois dong la fi def 4 mois yooyu bu dikkee dafa war a kaf fooree séq ak jàmm ki nga xamante ne moo di aw aw njëkkeem ba ñibbeem jot mu ñibbi waaw kon ndaw si moom moom lool laa koy wax jëkkër ji li ma koy wax mooy dafa war na teel a jël ay responsabilité gis nga Sénégal bokkal ak nit ndey ak bàyyi lum la ëppalee dina la koy woon li ma leen di wax xam naa ko bu baax bokkal ak nit ndey ak baay lu la ëpp ëppalee dala koy won sa baay sax bu la ëppalee ci kër gi ngay nekk ci biir kër gi mu walla ni la moo la ëppalee ndax da def dara mun la fayoo ndox mi fayoo courant bi fayoo lii ba pare di def nii di def naa waxantuma laa koo xamante ni sa rakk jëkkër la nga nekk ci kër gi mu nekk ci kër gi mu ëpple la non dala koy won away ah du la may jàmm coow li kay day mel ni tulleeg màlle parce que sa rakku jëkkër la muy ngi kër gi moo la ëppale moo ëppale sa jëkkër moo yor sa jëkkër mooy def lépp jëkkër ji tamit yeex a wax jabar ji këni sama rakk ji moo yor kër gi moo ma yor mais ay da ngay toog mënoo toog nga xool noo def bàyyi leen loolu góor ñi bàyyi leen loolu bàyyi leen loolu bàyyi leen bu problème amee jigéen ñi mer yéen xam ngeen jigéen xel ma matul day gaaw a ñaan baat day gaaw a wax bàyyi leen jigéen bu gaawee ñaan baat ngeen ne ko amal jëlal wala nekk ak jigéen naa ko ay yaa fi basa bopp ak xoolal noo def ak da ngay toog mën a sëy sëy mënoo ko nga xool noo def ak yooyu day yàq diggante ba leen loolu diggante yu bari yàqu na looloo ko yàq ba pare da ngeen di wëlbati ko waat di réccuwaat di jëli te kii sa doom la yor sa doom la ëmb kon man li ma lay conseil mooy demal nga fexe jël sa soxna luxe bi leen bila sa rakk ji di dundaloo bala nga doon xam dëgg-dëgg ni am njom ak fula ak fit ak fayda moo am solo nga génn sa rakk ji dina wëlbatiku ñëwaat jël si leen ba pare baalu leen waaye teg yaa ngi kon ne di nekk ci kër gi di ànd ak sa rakk ji ci lii mu bëgg jàmm doo ko am kon nag mbokk yi ñu joxante dig daje ba suba ak jàmm merci